waaw tey ñu nekk ak euh, le coach su Mame Less mu nekk coach su euh, écurie Parcelles Mbooloo coach su ñu lay ziar bàyyi la nga nuyoo mm, maa ngi leen di ziar man la Mame Less entraîneur Parcelles Mbooloo euh, dëkk Géejawaay dëkk Marché Sam du nuyu waa Marché Sam mm, di leen gërëm di nuy waa charretier yi nekk ci marché bi di nuy jaaj yi mi nga xam ne moo jaay scooter nuyu sumay su may mag xam nga sumay rakk ñoom lay jóob Cheikhou xam nga xaddam malik mi nekk Italie nga xam ne moom émission may def bu ma ko tuddee xol bi sedd guy sama famille sama yaay yi ñoom ñëpp maa leen nuyu. maanaam bu ma limee daal dama juum boo jugee foofu géejawaay jugee géejawaay ñëw parcelle bi entraîner ay nit ñu nekk parcelle pendant des années kon donc du ma mën a ñàkk bañ a gërëm écurie yi nekk parcelle nga xam ne écurie presque yi fi nekk yëpp presque jaar naa fa. Rock énergie laa jugee ànd ak Garga Mbossé sama doom day ñëw dóor dóoraat jugee dóor dóoraat tey yor parcelle mbooloo. def fi presque dix-huit ans au minimum wala lu ko ëpp kon xam nga ne du du ñetti fan maa ngi gërëm écurie yi yëpp yi nekk parcelle xam nga écurie Père Diaw euh, écurie euh, Père Birahim Pape Mbaye mi yor rek énergie dóor dóoraat entraîneur carré ñi fi nekk ñëpp parcelle gi daal benn la waaw parcelle on est te ñu ñëpp benn te doomu géejawaay bu jógee géejawaay di ñëw entraînement parcelle loolu bariwul mais nag yàgg gee tax ak yàgg gi ma fi yàgg daal moo tax ma am fi lii daal liggéey fi amis lu rëy loo xam ne tamit euh, nañ dem ba ci kanam <laughs> ah, waaw yàlla baax waaw coach ñu revenir tuuti rek avant ci ci historique bi école bi parce que gis nañ parcelle bëri na ay écurie am na rock énergie am écurie dóor doraat kon mun nañ xam euh, école bi kañ lañ ko formé ak lan moo gën a sabab tamit ñu taxawal ko non école bi bi biñ ko formé yàgg na école bi ay champion nekk nañ fi ba bëre ba bëre ba ba bàyyi bëre nekkaat ci école bi des ci école bi formateur yi paas ak mais ci la bokk mooy papay far bu jar day nous toog fii ci école bi certains seetaan ci li ñuy liggéey te école bi liggéey bi ñuy liggéey te yàlla baax sax ba muy vendredi tombé vendredi liggéey bi ñuy liggéey tax ñu jël meilleur écrit nekk troisième te c'est pas facile parce que écrit yu fi écrit euh, père Max Barga, a fi ñoo ñu Nous combat mais dañ leen victoire ëpp leen i ndam Rock Énergie ngi tout près tey parcelle mbooloo bu demee ba jël lii doo dóoraat jël pay kon donc liggéey bu sérieux mi ngi fi liggéey bu sérieux tamit mi ngi fii ci école mi ngi fii ci biir parcelle mbooloo te ay champion ñi ngi fi parce que boo limee François Émile Gomis lim Obali lim Ibra Ngabou far bu jar bi nga xam ne aussi c'est un jeune boo xam ne lim bokaa mi nga xam ne dimanche moo daan kon xam nga ne ay champion ngi fi te fii ku fi nekk man di bëri ndax ay bërekat dong fi daje mi seen tête de file bëggoon naa ñëw ci émission bi ndax waxoon na ma ko démb promettre na ma ko mais dama xamul ban gàllankoor moo ko téye ak lan moo ko téye ba tax ñëwut lool moom dese na maa leer mais peut-être dinañ ci déggante xam naa dina woo dina woote wax lan moo tax mais waxoon na ne dina ñëw pour jàkkaarloog yéen waaw. waaw absolument comme ni nga ko waxee liggéey ci lool ci ngeen tënk lépp. ñu gis ni comme li nga wax tamit jiitu ngeen écrit yu mel ni Lamsar ak école di Birahim Ndiaye la fois passée mun nañ xam léegi liggéey boobu ci lan ci lan la lan lan moo ko accentué. non liggéey bi continuité lay doon. liggéey bi mooy li ma la Franc ren moom lañ jox meilleur lutteur en lutte simple kon c'est pas facile parce que y a y a ñi nga xam ne ay lutteur yu mag la ñu ngi fi donc buñ nee ne kii mooy meilleur lutteur meilleur lutteur boobu jóge fii ci écrit Parcelles Mbooloo kon donc dañuy wax ne Parcelles Mbooloo y a quelque chose am na gërëñee bu fi ne gërëñee bu fi ne nag poussette ndaw yi xam nga ñu mag ñi boo leen tracé lee yoon bañ nekk ci yoon ba jëm mag léegi nag da ngay jël xale yi nekk ci suuf tamit jéem leen teg fi ñoom Franc jaar fi ñoom Obali jaar fi ñoom Ibra Ngabou jaar Moussa Dioum mi seen ndey mbili nag moom xale yi ngay dégg yëpp ñu nekk fi ay champion nga leen dégg ci bëre simple bi ñoom ñëpp Moussa Dioum ci lañ nàmpe bëre bi ñu nekkee ci lañ jàngee bëre ci moom am na ñu bari ñoo xam dañ daan toog ci cumukaayam donc bu buñ dee toog ci cumukaan tey ba man di bëri ba nga leen dégg ñuy champion ñu leen di fal lu ne fii ci Sénégal te ñun duñ fi duñ fi écurie boo xam ne tax na ñun fu ñu toll duñu dégg mais yàlla moo ñuy suturaal ba nga xam ne liggéey bu sérieux bi nekk fii Moussa Appal a ngi fi ngeer a ngi fi tey ku absenté doo xam ne sa morom kii absenté la téléphone rek la ñuy déggante bu ñu ñëwee séance d'entraînement day nekk au top te xale yi fi nekk ñëpp a man bëri ñëpp war a bëre ci combat Modou Lo Balla Gaye te bis yu mel noonu yombul muy combat bu capital ci moom di xale bu am jom mën a bëre parce que mën a bëre moo ko yóbbu ci combat Modou Lo Balla Gaye waaw loolu laa koy xamal nag combat am capital la te combat bi bu ci bëree ba pare incha allah rabbi ñaan nañ yàlla ngeen dellu siwaat fii ñu waxtaanaat ci combat bi. affaire ñu wax tuuti ci ci Moussa Dioum wax nga ko le grand champion parce que ñëpp gis nañ début carrière am mu nekkoon un fin bagarreur mën a xeex am rapidité d'exécution boo xam te ne ñëpp la jaaxaloon mais au fur et à mesure mu am benn rupture ci wàllu carrière am tolof tolof yu bëri lool tey yow lan lan lan nga ñu mën a wax tey ci fi mu toll nii situation bi. non xam nga maanaam mbër benn instant day taamu mbër benn instant léeg ñu ne ko nañ la jox diw mais xaalis ba ñuy fay moo dul baax ba mbër ma du ko jël waaye fi mu toll nii toog bi Moussa Dioum toog presque boo xoolee mi ci quatrième ane bu mu toog ñu dugg cinquième année loolu man mi neexuma. neexul booy yi nga xam ne ñu ngi leen dégg ci làmb gi ñuy toj làmb gi neexu leen parce que buñ sañoon seen tëdd fil équipe day bëri mais munoo jël Moussa Dioum dama koy jox diw daal koy fay prix boo xam ne leer na ne du prix boo xam ne moom la ñu war a bëree xam nga loolu buñ ko defee duñ ko mën a bëri parce que loolu kon bëri na ndax daaw amoon nay combat yoo xam ne man mii signal lañ ma ne combat yi ak Moussa Dioum yi Moussa Dioum mais fay te mbër boo déggee mbër rek xaalis boo waxee waxi mbër rek xam ne xaalis sa topp waaw loolu mooy problème bi looloo tax boobu léegi sëggul bëri mais aussi toogaay bi yag arrangé wul mbër ndax repère ba ci biir géew ba meuna a di beure chaque instant wala chaque année nga mos ben wala ñaar loolay indi repère lu lamb wa mais mbër amna fu muy toll nek ci yenn situation yi du jël combat ngir xaliss mais du koy jël ngir relancer wu est-ce que nga yaakaar ni mbër tollul fofu sa mbër Moussa Dioum. non non monam manam xam nga bo waxee loolu day melni dafa nek ci biir kàmb gi. té néna la daw ba ren nit ñi top di proposer ay combat yo xamné manam lima la wax rek xam nga mbeur aussi bi beure yori mbokk yor ñukoy ñaanal mu wara yor seen kër yor dund seen kër yaa ngi dégg day am som yoo xam ne du ko mën a jël waaw mais bu doon som bu baax man bu doon som yoo xam ne teelu na fa man mi maanaan ko indi xaaj ma def sama poos demal sëgg bëri mënu jàpp daal problème cassé moo ko tee débëree fi mu toll loolu dong la du leneen problème mu ak waxaale moom diggam ak promoteur am digganteem ak manager mi nga xam ne mooy mbéy jàll mi nga xam ne daaw ba ren man mii dañ ciy waxtaan maa ak moom te Moussa Dioum lépp lu mu dugg ma yëg ko lépp ba biig ci guddi ñoo ànd démb ci guddi te promettre woon na ma ne ma dina ñëw fii ñëw ci géejawaay info pour ñëw waxtaan ak yéen mais yàlla baax na xam nga tolof tolof peut être nag après nañ dégg téléphone pour mu wax ma lan la waaye maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim ne démb ñoo ànd mu promettre woon ne dina ñëw tey waaw waa Père ñu aborder beneen point rek parce que tey bu ñu xoolee génération ñu Modou Lo Balla Gaye au niveau de Guédiawaye Balla Gaye tey bu weesoo génération am na ñoo xam te ne mën nañu assurer relève bi ku mel ni ñoom ñoom ñoom Sa Thiès ku ci mel ni Marley mais bu ñu ñëwee parcelle mën naa ne gisuñu fi xale boo xam te ne tey bu Modou demoon ba génération bu weesu dina am xale bu mën a ñëw assurer relève bi tey yow loolu lan nga ko jàngatee. si loolu am na fi yéen boo am na relève mais fii am na relève fii am na am na góor soog a ngi fi garga mboosee ngi Euh, François Émile Gomis mi ngi fi Obali mi ngi fi te ay ndaanaanu làmb lañ chaque jour semaine bu ne nga dégg ñu gagné miis si làmb joo xam ne miis boo xam ne tey bu doon bëre bi bëre dóor bi duñ ko ci mën a am looloo tax ma ne la équipe bii ñu nekk nii di Parcelles mbooloo ay xale yu man di bëre ñu ngi fi nee naa la diggante le 22 décembre ba le 23 décembre jàpp le 24 lépp luñ teg diggante ñaaxar Fatick ak yooyu Obali ak Franc ñoo ko jël déggoo ma dama bëgg a dégg bu baax la ma la dama ne la lépp lu ñu teg diggante 21 décembre ba le 24 décembre diggante Ñaaxar ak Fatick ak Laayeen Laayeen Obali moo fa daan Bébé Diène te boo nee Bébé Diène xam ne ku mën a bëri la kon xam nga ne fii ay champion ngi fi François moo daan ngel jon mbot mu rëy te ni moo doon parrain bi kon loolu xam nga ne ay xale laa yor yoo xam ne seen yaram dafa màndi bëri di bëri googu ñu màndi bëri ak contact yi ñuy contact xale yi mel ne far bu jar loolu moo leen di may volonté ëllëg nee la ki ma xas ba yar ba màgg teg ko ci yoon ba mu dégg daal léegi nag poussette yi ndaw yi laay jéem a def noonu parce que man bu ma nekkee formateur di éduquer ñuy ànd di entraîner guddeeg bëtëg suba ngoon ma xam xale yi yor leen pendant des années donc bu mag bu mag ñi demee ba dégg daal am benn maturité yi damay jël xale yu ndaw yi nga xam ne comme Boka Far bu jaar Ibrahima bu ñoom ñëpp ma jël leen teg leen ci yoon ma teg ñoom Franc Obali kon mun na jàpp ni relève bi mi ngi fi mais euh, dese nañoo am tour tour seen tour eggagul fenn fi loolu la war a mën a jàpp waaw suñ sukkandikoo ci kàddu am na ay ndaanaanu bëreekat yu fi nekk mais peut-être seen tour mooy yeggul fenn fi. si déggoo li ma wax mënoo ñàkk ba a tudd bëre simple ñàkk bañ a tudd bëre dóor te déggoo leen ci parce que boo boo buñ nee Émile François Gomis daan ne obli mënoo dugg ci benn site fii ci Sénégal te gisoo leen ci. mënoo mënoo tudd bëre dóor nee naa la Franc ren moom lañ fay meilleur meilleur lutteur en donc kooku buñ ko falee lu men noonu xam nga ne champion lañu fa te ay champion fii ñoo fi ne parce que nee naa la Garga Mbossé ngi fi tout près Garga Junior mi ngi fi Gora Sock mi ngi fi te ñoo ñëpp ay naanaanu làmb la te xam nga leen donc François Aimé Gomis nekk fi nga dem rek énergie da nga fay jël ba doyal ci ay kàngam yu mën làmb donc parcelle mbooloo li fi nekk ak rok énergie li fi nekk ak dóor dóoraat ak père Birahim Ndiaye la nekk écurie daanaka ay champion ay ndaanaan rek a fi daje ndaanaan yi seen yaram man di bëre loolu laa bëgg nga xam ko maanaam seen yaram ñoom dafa man di bëre parce que compétition boo dem laale quatre-vingt-dix litres wala vingt litres bu dee bu dee luur yi bëriwuñ wala nga laal ak trente litres xam nga ne ñooñu ay champion lañ